bi l'observateur mi ngi ñuy wax ne keroog samedi ci la waa conseil constitutionnel siiwal liste définitive bu candidat yi war bokk ci élection présidentielle yi war am ci réew mi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février 2024 yi toll nañu ci ñaar fukki candidat ñoom ñëpp seeni nataal a ngi ci xët mu njëkk l'observateur muy Khalifa Sall Rose Wardini Aliou Mamadou Dia Mohamed Boun Abdallah Dionne Boubacar Camara Thierno Alassane Sall Pape Djibril Fall Bassirou Diomaye waa conseil constitutionnel génnee l'observateur ne nañu mooy Karim Wade génnee gi ñu ko génnee ci yëf yi moom Karim Wade mi ngi wax ci l'observateur la mu ca xalaat Karim nee na ab scandale ne tëj nañu ko kaso ci réew mi ay at ci lu tegewul ci yoon génnee ko réew mi gàddaay loo ko pendant juróom-ñaari at ci lu tegewul ci yoon léegi nag lenn rek a ci desoon mooy mu taxaw bëgg a doon candidat am ñu taxaw ne ko du fi amee l'observateur nañu moom Karim Wade ci kaw loolee mu jàppee complot judiciaire gu ñu def jëme ci moom nee na dana ko yóbbu ca kanamu cour de justice bu CEDEAO ak ci kanamu bépp juridiction internationale boo xam ne loxom jote na fa ngir jéebaane ko fa soleil national di ñu indil ay leeral ci yàqal Karim ba tax juge yu conseil constitutionnel yi génne ko ci ba mooy ñaari mbubb yi mu soloon dafa yeex summi benn ba maanaam dafa yeex delloo nationalité bu France am ngi ko déposé woon ca conseil constitutionnel 22 te ab nationalité bu France am ngi ko ñàkk janvier jëfam joojee moo xajamal déclaration sur l'honneur bi mu def ndax da caa wax lu amul li am ba des journal l'info nee nañu mooy moom Karim di Ousmane Sonko ko dee ci xëtamu njëkk kii di Amadou Ba recours bi mu recouroon ñoom Cheikh Tidiane Dièye ak ñoom Bassirou Diomaye Faye journal l'info nañu recours jàppul dañu ko débouté mi ngi ñu xamal moom journal l'info waaye nag loolee taxul ñu valider candidature moom Ousmane Sonko ndax condamné gi ñu ko condamné ci coow li doxoon diggam ak Mame Mbaye Niang ci la waa conseil constitutionnel sukkandiku ba invalider candidature am Les mi bind ne Mame Mbaye moo rëkkale xëtamu njëkkit ne ñaar fukki candidat ñoo at mi ngir bokk ci wote yi Karim Wade moom du ca bokk ndax conseil constitutionnel seppi na ko Walf fukki candidat moom Karim Wade mi ñu génne ci yëf ma ngi fay wax ne dafay metti rek waaye dina bokk bokk ci wote dina ci bokk ci nii baa mu bokk ci tena ki ñu bàyyi mu bokk ci di Bassirou Diomaye Faye okam yéenekaay bi nee nañ lu ñu bëgg mooy sàkkul ko ab liberté provisoire ngir mu mën dem campagne moom Bassirou Diomaye Faye public yéenekaay mi ngi xëy di laaj est bu bokkee ci élection présidentielle yi du suul yeneen leader yi ci yeewi askan wi gis na ne kii di Bassirou Diomaye Faye bu ko Ousmane Sonko jàppale mën naa dem deuxième tour mën naa gagner élection yi ngi koy weddi ci xët mu njëkk journal Tribune Boubacar Camara ne du plan B kenn plan A bu xalaat bi mu fi yëkkati woon mu di xalaatu ñu reporter élection présidentielle yi Tribune nee nañu borom jéngu tabax di Boubacar Camara génnaan na ci ñu génn fa te dugg ci Sud Quotidien mi ñuy wax ne ñaar fukki candidat ñoo taxaw ngir wutu Macky Sall ci bopp réew mi la Sénégal ne ko record la guléet ci Sénégal ñaar fukki candidat war a bokk ci élection présidentielle Thierno Alassane Sall mi génnee na di la mu leen tontu mooy fierté amu ci taxawaay républicain la ñu woon ci xëtamu nii muy demee bésub élection yi am lu ëpp millions yi doomi aadama yu bëgg a ñu mën woote ndax bind nañu waaye seen turu nekkul ci fichier électoral bi wax joojee les éco mi ngi ñuy xamal ne juróom-ñaari sage ca conseil constitutionnel dàq nañu ko nee nañu nit ku ñu bindal non identifié au général ba tax ñu rejeté parrain tekki tekkiwul ne nit kookee nekkul ci fichier électoral bi élection présidentielle yi 2024 yi journal la mandat mi ngi ñuy xamal ne bukkib Ousmane Sonko bi di Mame Mbaye Niang li mu bëgg ba di ci woote mooy ay waxtaan yu xóot maanaam dialogue approfondi ngir maanaam ay président Macky mi bëgg a dem demin wu rafet danañu taxaw waggar xotti suñu tànk tubay fexe ba suñu l'hôpital yeeg suñu centre santé yi am ay jumtuwaay maanaam infrastructure de dernière génération ay kàddu keroog samedi ci la ko xamle ba muy may ab ambulance poste de santé bu Sam ga ca Kaolack fa la waxeet ni relevé plateau médical bi yamu rekk ci wut ay matériel médical yu moderne Ahmed Youssouf Benjalou nee na formé fajkat yi da cee war a bokk ndax su kaw di rafet na maaseeg suuf mbir mu rafetul dara mi ngi ci libération yëral xët njëkko yéenekaay bi Adam Fa benn xale bu jigéen la bu amoon fukkeet ak juróom ab élève la woon bu doon jàngee ca collège bu Goudomp leen jàpp nañu leen ba tey jii ci lañ leen war a defeere fait divers beneen bu doy waar ci beneen journal mu di l'observateur ca Joal fa xewe ubbil yéenekaay bi Jaan Kali Diallo benn borom boutique la bu am sànc ca Guinée ba ko yeggale amul xaalis am benn dëkkandoom bu ñu naan Mamadou Traoré jabaram feebar amee insuffisance rénale mu jël ab terrain jaay ko ñeenti million ngir faj ca jabar ji jël xaalis ba di ñeenti millions yi dénk ko borom boutique ba